nekk ca Thiamène Pass ga ca diwaanu Linguère jàppante faam doxoon ci diggante sàmmkat yi ak euh, baykat yi am na fa sax genn góor ak doom yoo xamante ne ñeneen ñu jot nañu leen a coori jaas yi ba ñu mujj l'hôpital ñi ci amee gaañu gaañu kenn ki mën nga ñu yóbbu ca centre de santé Elisabeth Diouf bu Daara ka ca des ci hôpital Matlaboul Fawzeyni ba ca Touba ñu ànd ci leeral ak Mamadou Moustapha Ndiaye Sidi Thiam. L'on a frôlé le pire à Mboussobé village situé dans la commune de dans le département de. tey jii bi fukki waxtu ak benn jotee. mbir mu doywaar waar moo xew ci dëkk bii di Mbusoobe nekk ci commune bu Thiamène Pass ci département bu li Linguère benn sàmmkat moo dugal ak juróom ci toolu Modou Seye mi fa nekkoon ak doomam ji wuyoo ci turu Ousmane Seye ñu doon roñ gooñ ci li ñu nettali ci la coow doxe seen diggante ba sàmmkat ba cor leen ay jaasi ci seeni yoxo ba mu laalaale sax yenn ci seeni baaraam gannaaw bi mu defee njombe loolu ci la sampu xelam laata askanu mbusoo bi ba fa yeewoo yore woon ay ratu ak ay yet jot ko dóor laata ñu koy teg loxo élément brigade yu gendarmerie yu Daara Jolof ci lañ déplacé wu dem fa mbir ma xewee ngir jàmm dellu si fa ñoom ñëpp ñu jébbal leen kër docteur ngir mu faj leen ba noppi gendarmerie bu Daara ubbi ci ab lanket kii di du Seye sax moom ci li ñu xamal mujj nañ koo yóbbu fële ca Touba ci hôpital Jannatu lu si man di am. jàmmarloo diggante sàmmkat ak baykat lu ñuy faral di nemmeeku la fii ci département bu li Linguère muy faral di jur sax léeg-léeg ay jéye kilifa yi war see xar seen tànk tubéy ngir kat lu nu mel man fee bañ a amati. ak lakk am tey jile ci atelier bu nekk ci lycée Limamou laay bu Géejawaay yàlla def na nag euh, maanaam bakkan desu ca am na lu fa yàqu lycée la boobu it gis nañu ne màgget na te la fa nekk ci ay ndongo lim ba jéggi na dayo ndax ñi ngi koy wax lu toll ci fukki junni ndongo ak ñaar mm, ay liggéey yu ñu war a amal foofe proviseur bi di sàkku ñu gën cee taxaw gën koo baral bu mën a sotti lu ko mooy gis na ne at yii di ñëw danañu am ay jafe-jafe ak ndongo yi ñuy dalal ca boobu le ci yëf yeeg na mu xewe ànd ceeg Aminata Mbaare Sow Abdoulaye Anne benn pàcc la ci atelier bi nga xam ni dañ fiy def ay travaux de fabrication mécanique froid et climatisation moo jàpp daal di lakk waaye nag ñu jàpp ne lakk bi a ka am solo ndaxte teel nañ koo fay. Euh, installation yi souterrain la woon ko maanaam fii ci suuf la jaar. Euh, xam na ni lu ci bëri dafa màggat waaw loolu moo ko indi. lakk-lakk yi di nëbb

du ñu am fu ñu dugal ëllëg. ndaxte bërëb bi la tey jile daanaka bâtiment yu ci gën a bëri dañoo màgget loolee waral sax dañuy tiit ngir élèves ya faa jàngee. ci fukki junni ñaar yooyu daf ci am juróomi junni yoo xam ni euh, enseignement technique lay nekk ak formation professionnelle. seenu njàng dafay laaj ay atelier gis nga machine yi ngay gis ni ça veut dire que donc li ñu mën rek mooy gaawantu defar lycée bi. ñëpp nekk ci